bu ko defee itam dundu yonente bi alayhi salaatu wa salaam lu jàdd waxtaane la ndax jamono jiin toll kenn ku ne day woote askanoo ci yonente bi dundu yonente bi ngay seet nam la neexe te dëppoog say xalaat nga di ko waxe noonu moo tax na nun war na ni fàttaliku dundu yonente bi rawatina ni ñu ko sëñ bi jàngale nga xam ne mooy nam amee woon rek yokku ci dara wàññiwu ci dara Sëñ Tuubaa dinaay wax ni yàlla da ko defal la yonte ba yoroon moom la moom la yor muy lislaam bi rek la yoon da ko yeesal li ci gaañi dugal te bokk ci mu génn ko ci lañ ca génn te te mu bokk ci mu dugalaat ko ci loolu rek mooy gàttalu yeesal bi mu yeesal lislaam démb nag noo ngi tolloon ci wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aleykum wasalaam mi ngi gane àdduna ci weeru wii nu nekk muy weeru gàmmu ci fukki fan ya ak ñaar maanaam fukki guddeel fukkeelu guddi ba ak ñaar nga xam ne ca fajar gi itam la ko def waxoon naa itam ni bi mu ganee àdduna maamam ji ñuy wax abu ta abdul muttalib moo ko wutalu tur tuddee ko muhammad muy tur woo xam nit kenn mësu koo xam ci jamono jooju soxna aminatu mi waajur mu jigéen at moo ko njëkk nàmpal ginnaaw ba ku ñuy wax suway batu nàmpal ko suway batu itam jaam bu jigéen la woon boo xam ni ki ñuy wax abu lahab moo ko moomoon moom it ba mu yëgee ne ba ba yonente bi gane àdduna rek daa dem dëggal ca sangam boobee abu lahab mu daal di koy goreel fasaase ngir bëgg ci gane gi mu gane àdduna waxoon naa itam dem na imaamul buxaari nettali na ni abbas mi bàyyi bu ndaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne ginnaaw bi dafa gént ginnaaw bu abu lahab faatoo da ko gént abu lahab xamal ko ne ko sawara wi mu ne altine bu ne danañ ko féexal danañ ko génne féexal ko doog ko ja dugalaat ngir lam goreeloon jaam boobe ci dëgg gi mbëggoon ci ganak adduna sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu it kon wane na ci ne képp koo xam ne yaa ngi dëgg ci ak ganeem ak di ca def ay xéwal maanaam la ca ne ci xeeti jagle yàlla rek moo ko xam bi nga xamee ne gane na àdduna itam moom Seydina Muhammad dañ ko daal di jox ki ñuy wax xalimatu ashabiya mooy ki ko nàmpal xam ngeen ne arab yi dañoo baaxoo bu ñu amee gone dañ ko yóbbu ci àll ba ngir yu bare bare bare ngir xam nga ci àll ba ca la seen seen yaram di gën a dëgëre ñu nekk ci àll bi seen yaram dañuy gën a dëgëre ñaareel bi itam dañuy gën a dégg làkk wi ba léegi si ñu nekk ci taax yi seeni wax yi ñuy wax la làkk wi ñu bokk nàmp ñu ñëpp du set parce que wolof bi nu ne boo seetee ña ca taax yi fi ne waxatuñ ko daanaka dañ koy jaxaseeg ay arabe ay français ay anglais loolu lañ ci dugal loolu nag moo xew ci réew réew yëpp ci jamono yi yi sa Seydina Muhammad di gane itam loolu moo xewoon mooy ñu nekk ci àll ba ñooy gën a dégg làkk wi waxtu wu ne ñooy gën a am dëgërit ñoo gën a am ab yar ndax àll bi ci la loolu lépp mën a amee moo tax bu buñ masaa am ku ci masaa am gone da nga ko yóbbu ci àll ba ngir ñu nàmpale ko foofe yàlla dogal nag ku ñuy wax xalimatu assaadiya bintu abi duayb borom këram tuddoon alxaaris ibnu abdul uzza ñu di ko wax abu kabsa ñoo bokk genn giir ñoom ñaar kooku mooy ki ko nàmpal muy soxna soosu yonente bi am na ñu bari ñu bokkal maanaam nàmp nga xam ne xalima moo leen nàmpal mooy ki ñoo abdullah ibnul xaaris ak anisa bintul xaaris ak xudaafa bintul xaaris ak ki ñu wax abu sufyaan ibnul xaaris ibnu abdul muttalib nga xam ne doomi bàyyam bu ndaw la ak sayiduna xamsa itam wax nañ ne suway bu moom mu njëkkoon na ko nàmpal mi ma njëkkoon tudd ginnaaw bi itam ba moom it dañ ko yóbbu ca fa waa banu saad nekk muy fi xalima dëkk am soxna sa ko nàmpal daa mës a ñëw ci kër xalima maanaam nàmpal yonente bi alayhi salaam wenn yoon moo tax ñu jàpp ne ñoom ñaari bokk nañ nàmp ñaari yoon xalima nag moo nett li mbirum digganteem ak sayidna muhammad lépp moo ko nett li boppam ibnu ishaq indi na ko ci siira yonente boobu mu nett li wax ni xalima dafa wax ne moom dëkk ba mu nekkoon muy seen gàdd googee doom ji ndaw la yoroon fekk nee na seen gàdd gi jigéen ñi dañoo baaxoo di dem ci dëkk yu yeneen tane ci mag yi leen gën a mag tuuti di fa wut ay gone ngir leen nàmpal su ko defee bàyyi xale yi ñu na yi ñu nàmpal seen i doom di leen jox dara mais Halima nag nee na boobee nag bi muy dem di jëli Seydina Muhammad nee na boo dafa génn war mel mbaam moo xam ni dafa lompañ te amut kattan moom mbaam mi nga xam ne ñi mu àndaloon jigéen ñi mu àndaloon ñëpp dañ ko raw ci yoon wi yàlla dogal nag nee na bi ñu agsee ci dëkk bi itam ñuy wër jigéen ñi ñi mu àndaloon ñu ci baree bari ñëw nañ Seydina Muhammad bëggoon ko jël waaye buñ laajee ñu ne baayam dafa nelaw dafa noppalu dañ ko fay bàyyi dañuy wax ne ginnaaw amut bàyyi ab jirim moom maanaam yaayam xam jigéen mënta joxe lu am solo moo tax dañ ko fay bàyyi Halima itam moom ginnaaw mi ngi doom ji ndaw te doom ji dafay jooy jooy yu mett fu mu demit ñu ne ko yow ginnaaw sa doom ji mooy jooy nii yow ku la jox suñ buñ la joxee suñ doom it doo ko mën a jëriñ lu am solo moo tax it moom it amut kenn Halima ne na biñ demee ba nga xam ne bépp rek a def ma xam ne bu sama mbokk yëpp amee ku ñu yóbbaale mu yóbbaale ma kenn dana mett ci man ci laa ne naa dëpp jëli jirim boobee nga xam ne moom ñàkk pexe ko ci dugal nee na itam bi ma ñëwee laa ko jël moom Seydina Muhammad waaye xam nga keroog dañoo dañoo mujj fanaan daa mel ni ci dëkk bi li ñu waxee ni mu waxee dañoo fanaan ci dëkk ba doo ko xëy nag dem ñibbi nee na waaye bi ma ko jëlee ba teg ko samay lupp rek maanaam bi ma ko gàddoo rek moom xale bi laa yëg ne samay ween tàmbali nañoo am soow fekk moom amutoon benn benn soow nee na xaleem bu ndaw bi mu yoroon daa dëkkee di jooy guddi gi nga xam ne guddi gi du nelaw mook borom këram ngir ngir jooy xale bi ndax boobu amut soow te xale bi day xiif nee na nag bi nga xam ne jël naa Seydina Seydina Muhammad rek keroog nee na bi mu nampee ci weenam wi fekk nee na weer wi daa daal di bari soow lool nee na mu namp ba suur doomam ji ci des moom it namp ci ba suur nee na nga xam ne keroog moom jógit ci guddi ga nee na keroog guddi googu mosunoo fanaan daanaka guddi gu mel noonu ci jàmm yoo xam ne dañ ko am ñun ñëpp nee na itam ci guddi gi nee na borom këram dem di xool gàtt yi ñu amoon mooy mooy jur gi ñu yoroon gis jur gi fees dell moom it ak soow mu ratt ci nee na ñu naan jëfandiku ci yàlla dogal itam nee na bañ demee ci dëkk ba ba ñuy dellu itam ci yoon wi te suba ga nee na mbaam mi mu yoroon gën a sawar mbaam mi ci des yëpp yitu leen di daw ba mujj nee na kenn ci ñi mu àndoon ne ko xanaa xalima kii du mbaam mi nga yoroon mu leen axakay moom la de ñu ne ko ah yow de xaw ma koo jël waaye xam naa jël nga ki nga jël moom am na barke mais bañ àggee ci dëkk ba itam fekk dëkk ba boobu ci ci jamono yi bekkoor lañ toll waa dëkk bi daanaka seen gàtt dañuy xëy suba ba ngoon te duñ for dara moo taxoon nee na ngoon gi bu ñuy ratt ci seen am saw ci seen gàtt yi duñu am dara daanaka duñu ratt yàlla dogal nag nee na muy def ñun gàtt yi mu am moom xalima gàtt yi ñu am ñuy dem ci àll ba di sàmmi fu ñu demee ñoom dañuy lekk ba suur kël ba ñëpp xam suur gi suur bu ñëwee itam dañuy bariñ soow ñu ratt ci naan maye mujj nee na waa dëkk bi di di nar a jàppanteeg ñi leen di sàmmal ne leen yéen benn da ngeen a sàmmut na mu waree wala boog maanaam andu leen ak xalima ñi koy sàmmal ndax moom bu sàmmee ay gàttam dañuy suur te yéen gàtt yi ngeen ñu sàmmal lekkuñu noonu nag lañ demee ne xarima nee na nee na ñu sax ci loolu ñu sax ci loolu lu mat ñaari at nee na mu seetlu itam ne yonente bi ni mu doon màggee wuute naa ak yeneen xale yi nee na bi mu amee ñaari at dafa dëgër nekk nekk xale lu xaw góor li xale lu góor wuuteeg xale bu ñaari at waaw dafa mel ni ku mag mag mag lu ëpp ñaari at nee na yàlla dogal nu daal di koy delloo si ci yaayam ndax xam nga boo demee ba far rek da nga ko war a delloo ay bokkam waaye bi ñëwee nee na ma waxtaan ak yaayam ne ko kat yéen seen dëkk bi dégg naa dafa am mbas mu fi xew léegi nag ginnaaw kii xale bu ndaw la mbas xajut ci moom da ngay bàyyi ma dellowaat ko yoral la ko ba mu gën a dëgër ma dog la ko indilaat nee na soxna Amina ànd ci loolu yaayam ànd ci loolu nee na mu daal di koy dellowaat fekk nee na moom booba bëgguma tàqali ko moom yàlla dogal itam mu daal di ànd ak moom nekk foofu ca diyaaru bani saat mooy gàdd googee ba ni mu amee ñeenti at moom yonte bi alayhi salaam jëm juróom bi mu amee ñeenti at jëm juróom ci la benn bis mu ànd ak xale yi di di di sàmm ci àll bi xale yu góor yi mu àndal ñu jëkk-jëkk rek gis ñaari nit ñu weex ñu sol lu weex tal ñoo xam ni xamuñu fu fu ñu jógee dañuy jëkk-jëkk rek seen leen nekk di ay malaayka lañ ñu ñëw dàq ko dàq ko ba jot ko rek jàpp ko tël ko bi ñu ko tëralee kenn ki jël loxoom rëdd ci kii bi xar xar xar xar xar xar biir bi xale yi daw daw ca kër ga nag nettali ne daal Muhammad da ñaari nit ñoo xam ne ponkale nit ñu weex tal ñu sol lu weex tal ñoo jëkk rek ñëw tëral ko xar nañ xar nañ biir ba da ngeen àgg ngeen fekk mu faat yénente bi itam nee na bi ñoom bi ñu xaree biir bi dañ cee génne aw dog ne ko hada xabdu seytaani mink li ma cëru seytaane ci yow dogoowu nee na dañ koo raxas ci ci bool boo xam ni dañ koo yoroon ñoom bool boo xam ni or lañ ko liggéeyee ndoxum sam-sam nekk ci mais ñu raxas ko ci raxas ko ci daal ko ci dellowaat seen loxo yi ne ñu jaarle ko waat fii rek mu mu mu mu dajawaat nee na nag fekk xale yi moom daw nañ bu yàgg ba wax ko waa dëkk ba waa dëkk bi ñuy dem bi nga xamee ne ñu ngi noppi noonu ci moom la waa dëkk ba ak bi ñëwee fekk ko nee na kanam gi xaw a mel na ku sonn noonu waaye ñu xool dënn bi dara sikku ci Seydina Muhammad sax am na ci napp li boo xam nee na moom maanaam bi waa dëkk bi agsi kenn ci ñoom loxoom mi ngi ci loxoom nga xam ne mi ngi ko téye nga xam ne bi boobu ñu ngi agsi nañ te séenuñu leen daanaka xëy na bi ñuy dem nee na nag bi loolu amee ñu ne moom xale yi yëpp mënuñoo maase wax lu amul ndax ñoom ñëpp ne nañ gis nañ ko tëral nañ ko te dagg nañ biir bi kon lii ñekkut moom wér lay doon ñi ne waaw kon xanaa jinne la ñu ñu tàmmal dëkk bi kenn ko na di ko firee na nga ko na nga ko gisee ñii naa jinne la ñi naa daal kii daal ay mbiram ñu ñu waa dëkk bépp maasee ci ne xalima delloo koy bokkam kii daal boo ko fi téye mën na daa indi yaraan soxna xalima loolu moo tax mu daal di koy delloo